بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تقد يدا أبي لهب وتبع معني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ساعة تدخل امرأة أما تفجي دعاء المزل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم tey nag daje woon nañ fi ngir di ñaanal suñu sang ba muy Serigne Cheikh Fall jëmb nga xam ne fuñ ko fuñ tudd Argentine rek xel yépp dem ci moom ñu gën a góorgóorluwaat te xam ne réew mi sëriñ Cheikh Fall jëmb yóbbaale na seen ngërëm Argentine nañ gën a góorgóorluwaat te laxasaayuwaat te xam ne Serigne Cheikh jëmb yóbbaale na seen ngërëm li ñuy dabu nag mooy ngërëmul kii nga xam ne moo fi nekk muy Serigne Amdi Modou Mbenda Fall nañ góorgóorlu moom it ba làq ngërëmam. li wax ne Serigne Cheikh Fall jëmb mënuñoo wax ci moom lu sori ndax bu ñu tàmbalee rek suñu xol dafay fees ndax day jëmm joo xam ne léppam noppi la woon ak liggéey liggéeyal na ay baayam liggéeyal maamam waaye liggéeyal képp koo xamante ne nii Serigne Touba bàyyi na ko fi li ko dale ci Serigne saaliw ba ci Serigne Alaaji Baara Mbàkke Falilu ba ci sëriñ Serigne di Muxtaar waaye ba ci Serigne Muntaxa mi ndax jour bi muy wàcce dajale na àddee jana ca kër gi yépp yóbbul ko sëriñ Muntaxa Mbàkke bi mu ñëwee ci kër gi ci la noppalu may wax sëriñ Cheikh Fall jëmb jëmm la woon joo xam ne képp kuy Baay Faal rek maanaam doy na tegtal maanaam war ngaa waxkirlu ci moom war ngaa roy ci moom moom Serigne Cheikh Fall jëmb misaal laay indi wax na ne ngërëm li gën a jafe moom làq na ko muy ngërëmul doomu baayam ndax nit ku nekk tey xam nga ne sa digganteeg sa doomu baay këru kujja da ciy am wala mbiru kujja waaye moom de liggéeyal na doomu baayam yépp ku ci mel ni Serigne Cheikh Fall Baye góor waaye ku ci mel ni it Cheikh du Fallou Fall muy Serigne Modou Aminta Fall kon Serigne Cheikh Fall jëmb yal na sama borom yokki leeram Serigne Cheikh Fall jëmb yal na sama borom yokki leeram man nag mënuma cee sori damay wax bi lazi laa ilaaha mooy Cheikh ndax man daf ma ko woon waxtu wu jot bu jëloon fii ziar di ko yóbbu Sénégal bu ma fekkee ci réew mi buñ ñëwee suba la ziar bi guddi gi damay jàkkaarloog moom ba ni bët sete la ñuy waxkante nag ak lam may wax ci gént gi maanaam ci guddi ga loola man la ak moom ndax kilifa kenn du ko duural waaye damay wax ne Serigne Cheikh Fall jëmb daal moom li mu doon naan doon wut Cheikh Fall da koo doon loolu mooy li wér yal na sama borom yokki leeram bu ñu ko gaaw fàtte nag ndax ñetti bés nii daanaka génnuñu suñu kër ak ngir fi mu toll ci ñun mm-hmm. wax ji sax ku ñu dégg nañ daan waxee ak nii ñuy waxee nga xam ne waaw kéemaan la mm-hmm. waaw ñu ngi koy ñaanal daal sama boroom yokki leeram mm-hmm. taaf ñu ci barkem Serigne Cheikh Fall jëmb yal na sama borom yokki leeram taaf ñu ci barkem sikkar nañ fi jàng nañ fi arxuraan jàng nañ fi xasida te kenn ku nekk xam na ne réew mi nii mu mel nii ndaje dañ ko fi bañ waaye ba ñu jógee ngir sàkku ji maanaam pour ñaanal ko rek la sama borom yombal lépp waaw kon loolu dafa am lu ci laxasu waaw kenn ku nekk xam na ne nasaraan yi dañuy bañ ndaje waaye biñ jógee ne dañuy wàkkirlu ngir wuuti fu ñu foo xam ne fa la ñuy ñaanale Serigne Cheikh Fall jëmb rek mbir mépp dafa woyof kon nag yal nañu ñu sama borom taaf ci barkeem yal nañu ñu sama borom taaf ci barkeem ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فل فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله illallah la ilaha illallah Cheikh Ibra la ilaha illallah la ilaha illallah fal fal yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah hal ya fal badara faal kenn am di seex faal musa faaw maam seex la faal yaa mot boroom xalliya faal badaraaw maam seex la faal yaa yaa mot dimbal noo faal yokku noo te nu la dootul nangoo gindi noo faal te dimbal noo maam seera faal yaa mot borom xalliyo faal badaraaw seex baram mbawar faal kan am di seex faal Mustafa maam seera faal yaay génn góor addi Cheikh Ibrahima